askanu yanqooba benn saar fanweer ak juróom yuusufa gént na lu yéeme yanqooba ma nga dëkkoon réewu kanaan fa baayam daloon askanu yanqooba mooy lii yuusufa toll na ci waxambaane am fukki at ak juróom ñaar di sàmmale jur gi doomi baayam yi nga xam ne soxnay baayam bilaa ak silpa ñoo leen jur yusufa nag di leen boole ak seen baay booba yanqooba yusufa la gën a bëgg ci ay doomam ndax li mu màggat door ko am noonu mu ràbbalul ko mbubb mu yànj mag ja gis ne yusufa la seen baay gën a bëgg ci ay doomam loolu tax ñu bañ ko ba mënuñoo séq ak moom kàddu gu rafet mu am bés yuusufa gént nettali ko ay magam ba tax ñu gënati koo bañ dane leen déglu leen li ma gént danoo nekk ca tool ya di góob ba nu takkee sama takk jekki-jekki ne sàtt taxaw seen takk wër sama takk di ko sujootal mag ya ne ko danga nar a falu ci sunu kaw danga noo nar a jiite noonu ñu gënati koo bañ ndax géntam ya ak la mu leen ca wax gannaaw gi geneen gént dikkal ko mu nettali ko ay magam ne leen déglu leen géntaat naa gis naa jant bi ak weer wi ak fukki biddeew ak benn di ma sujootal ba mu ko nettalee ay magam ba nettali ko baayam baayam da ko soow ne ko yow li nga gént lu mu doon xanaa du maag sa yaay ak say mag ñoo lay sujootal mag ya nag iñaane ko waaye baayam moom di bàyyi xel ci mbir moomu mu am bés ay magam dem dëkk bu ñuy wax sisem sàmmi seen juru baay israel ne yusufa xam nga ne say mag sàmmi nañu sisem kaay ma yónni la ci ñoom yusufa ne ko waaw ba ne ko demal seeti say mag ba xam ndax ñu ngi ci jàmm ñoo mag jur ga te nga ñëw wax ma noonu mu yebal ko mu jóge xuru Ebron jubal Sisem naka la jenn waay dajeek moom foofa fekk muy wëreelu ca àll ba waaja ne ko looy seet yusufa ne ko samay mag laay seet xamoo fu ñu toll di sàmm waaja ne ko jóge nañu fii de ndax dégg naa ñu naan nanu dem dotaan yuusufa toppi magam ya ba dotaan fekk leen fa naka la ko mag ya seen fu sore daldi mànkoo bala moo agsi ci pexeem rey ko ña nga naan boroom gént gaa gaangee di ñëw nanu ko rey gaaw sànni ko ca kàmb yee su ko defee danu naan rabu àll ko fàdd nu seet ba xam fu muy mujj ki géntam waaye ruben dégg ca di ko fexe xettali mu ne leen bu nu ko rey ruben teg ca ne leen bu leen tuur deret sànni leen ko ca kàmb gee ca àll ba waaye bu ko loxo dal booba ma ngay wut nu mu xettalee yuusufa ci ñoom ba delloo ko baayam ba yuusufa agsee ca magam ya dañoo futti mbubbam mooy mbubb mu yànj ma mu soloon ñu jàpp ko tàbbal ca biir kàmb ga fekk mu dey ba wow koŋ loolu weesu ñu toog di lekk nes tut ñu siggi seen am njëgum giléem muy ay ismayleen yu sëf cuuraayu ndàbb ak diwu yaram ak cuuraayu xas jële ko réewu galaat jëme misra noonu yu daane doomu baayam ya bu nu reyee sunu rakk ji nëbb deret ji lu nu ciy jële teenu ko jaay ismayleen ñi te bañ koo sàkkal pexe nun ci sunu bopp ndax kat sunu rakka di sunu deret doomi bàyyi déggal ko julay majan ya nag jaare fa ñu yootu yuusufa génn ko kàmb ga jaay ko ismayleen ña ci ñaar fukki donj xaalis ñu yóbbu yuusufa misra ba mu ko defee ruben dellu ca kàmb ga gis ne yuusufa nekkatul ca biir mu metitlu ko ba xotti ay yéreem ba loolu amee mu jóge ca dem ca ay rakkam ne leen xale ba nekkatu fa de te man xawma nu may def léegi ñu jël nag mbubbu yuusufa rendi ab siket taxal mbubb ma ca deret ja gannaaw loolu ñu yóoti seen baay mbubb ma ne ko mbubb mii lanu gis de mbaadu sa mbubbu doom yanqoo ba xàmmi ko daldi ne sama mbubu doomam moos ey waay rabu àll kay moo daggate yusufa yàpp ko ci kaw loolu yanqooba metitlu ko ba xotti ay yéreem taraxlaayoo ab saaku di jooy doomam ay fan doomam yépp góor ak jigéen ñëw di ko defal waaye noppiwul xanaa naan damay jooy ba dem janiw fekki sama doom noonu baayam di ko jooy yusufa nag moom waa Madian yóbbu ko Misra jaay ko Potifaar mi jawriñu Firawna te di jiite ay wattukatam saar fanweer ak lu jëm ci askanu ca jamono yooyu yuda dafa teqalikoo ak ay doomu baayam dal ca waaju dëkk adulam te tudd ira foofu nag yuda gis fa senas ndaw su doon doomu kananeen bu tudd suwa mu jël ko soxna mu ëmb am doom ju góor tudde ko er mu dellu ëmb am doom ju góor tudde ko onan mu amati doom ju góor tudde ko sela ba sela di juddu te kisip la fekk yuda gannaaw gi yuda jëlal taawam er jabar ju tudd tamar waaye er taawub yuda boobe doonoon ku aji sax ji seede coxoram aji sax ji rey ko yuda ne onan demal ci sa jabaru mag donn ko ndax nga giiral sa mag aw askan waaye onan xam ne du doon askan wu muy moom ba tax saa yu dëkkoo jabaru magam bay war a àgg tuur wasal wi ci suuf ngir bañ a giiral magam aji sax ji ñaawlu lu muy def ba tax mu faat ko moom itam yuda daldi wax tamar jabaru doomam ne ko demal sa kër baay tenje fa ba sama doom sela màgg booba yuda dafa ragal seela faatu moom itam ni ay magam tamar nag dem toog kër baayam ba ñu demee ba mu yàgg doomu suwa soxna si yuda faatu ba dëj ba wéyee yuda dem fekki watkati xaram ca timna ira xaritam bi dëkk adulama nga ànd ak moom ñu yégal tamar ne ko sa goro ngi jëm na di wate ay xaram noonu mu summi yérey jëtun ya muuru sangu toog ca sele ba yoon wa jëm enayim ca yoonu na ndax booba gis na ne sela màgg na te mayuñu ko ko muy jabaram yuda gis ko yaakaar ne gànc la ndax li mu muuru mu jàdd ñëw ba ca moom ne ko may ma ma ànd ak yow fekk na xamul woon ne goroom la mu ne ko loo may fey ngir ànd ak man mu ne ko dinaa jël bay wu ndaw ca sama gétt yónnee la waaye mu ne ko jox ma lenn looy tayle ba kere ngay yónnee mu ne ko lu ma lay tayle ndaw si ne ko xanaa sa jaarub màndargaal ak buum gi mu àndal ak yet wi ci sa loxo mu jox ko nag ba noppi ànd ak moom fa la ndaw sa dem yoonam dindi muuraay ba solaat yëre jëtun ya ba loolu wéyee yuda yebal xaritam ba dëkk adulam mu yoti ndaw sa bëy wu ndaw wa ba mën a jotaat la mu tayle woon ca ndaw sa waaye gisu ko mu laaj waa gox ba ne leen ana gànc bi toog enayim ci yoon wi ñu ne ko fii de ab gànc nekku fi mu dellu ca yuda ne ko gisuma ko de te waa gox ba nee nañu foofa gànc nekku fa yuda ne ko nanu ko ko wacce mu jël lu ko may ñu reenu gannaaw maa ngi nii yónnee béy wu ndaw wii te yow gisoo ko kay ba ñu ca tegee lu tollook ñetti weer ñu xamal yuda ne ko tamar gorom ba da doon jaay boppam ba jaare ca ëmb yuda ne nañu ko yóbbu lakk ko ba mu dee naka lañu koy yóbbu mu yóbbante goroom ba ay kàddu da ko wax ne ko ki moom lii moo ma ëmbal mu teg ca ne ko xoolal bu baax te wax ma ku moom jaaroob màndargaal bi ànd ak buum gi ak yet wi yuda xàmmi yëf ya nag ne moo ma gën a nekk ci dëgg de gannaaw mayuma ko sama doom sela gannaaw ba loolu wéyee àndatul ak moom tamar dem ba war a wasin ndekete ay seex la ëmb ba muy mucc kenn ca doom ya daal tàllal loxo ba rewlikat ba jàpp ca takk ca wëñ gu xonq cur noonu mu ne kii moo jëkk a génn waaye naka la delloo loxoom seexam juddu mu ne ko yow foo bëtte ba génn ñu daldi ko tudde peres loolu di tekki bët nees tuut seex bi wëñ gi takke ci loxo li door caa ñu tudde ko sera saar fanweer ak juróom ñeent jaay nañu yusufa jawriñu firawna ba ñu yóbboo yusufa misra potifaar jawriñu firawna ma jiite ay wattukatam da ko jënd ca ismayileen ña ko fa indi waaye aji sax ji ànd ak yusufa may ko ndam mu dëkk ca kër sangub waa misraam ba sang ba nag gis ne aji sax jàngi ànd ak yuusufa di ko may ndam ci lépp lu mu sabablu sang ba am cofeel ci yuusufa def ko fara biir këram dénk ko saytub kër ga ba teg ci loxoom lépp lu mu moom boobe waaye misra ja dénkee yusufa këram ak lépp lu mu moom mu di ko saytu ca la aji sax ji dale barkeel këram barkeelaale mbooleem lu mu moom kër ak tool noonu mu bàyyi lépp ci loxol yusufa te li mu fa nekk tax ba toppatootul dara ciy mbiram lu moy li muy lekk rekk booba yusufa ku jekkoon bind la te góor a yiw soxna potifaar fexeel na yusufa mu am bés nag soxna sangu yuusufa ba xemmem yuusufa daldi ne ko kaay tëdd ak man waaye yuusufa bañ ne soxna sang ba déglul sama sang dama jébbal lépp ba toppatootul dara ci kër gi ëpplewuma sañsañ ci biir kër gi te aayewuma lenn xanaa yow ndax soxnaam nga kon léegi nu may mën a defe ñaawte fu rëy wu ni toll di mooy yàlla ba loolu amee bés bu yàlla sàkk mu di ko wax yuusufa waaye dégluwu ko te weetul ak moom sax bay tëdd ak moom mu am bés yuusufa dugg ca kër ga di def liggéeyam te kenn ci surga yu góor ya nekku fa ndaw si jàpp ci mbubb mi ne ko kaay tëdd ak man waaye yuusufa wàcc mbubb ma cay loxoom daw génn kër ga ndaw si gis mbubb mi mu ko wecce ba daw génn mu woo surgay kër ga ne leen xool leen hébreu sii sama jëkkër indi ci kër gi mu di nu yàpp dafa ñëw bëgg ma tëdde ma yuuxu ca kaw naka laa yuuxu ca kaw mu wàcce ma mbubbam daw génn ba mu ko defee ndaw si denc mbubb ma ba sangub yuusufa ba ñibbisi mu nettalee ko ko noonu ne ko jaamu ebre bi nga indi ci kër gi de dama fekk si di ma sàkku naka laa yuuxu ca kaw mu daw génn wàcce ma mbubbam tëj nañu wax ne moom la ko jaamam def mu mer lool ba jàpp yuusufa tëj ko kaso ba ñuy denc ñi buur jàpp yuusufa nekk foofa ca kaso ba waaye aji sax ji ànd ak yuusufa laaye ko biir daldi xiir wattukatu kaso ba ca moom mu ni ko noonu mu may yuusufa mu yilif ñi ñu tëj ñépp te mbooleem lu ñu fay def mu di ko jiite wattukat ba seetatuloon dara lu yuusufa jiite ndax aji sax jee ànd ak moom te lu mu sabablu aji sax ji may ko ca ndam saar ñeent fukk ñaari gént ba loolu wéyee ki toppatoo naani buuru misra ak lakkatu mburóom dañoo tooñ buuru misra seen sang firaaw na nag mere lool ñaari jawriñ yooya kenn ka di kilifay ñay toppatoo ni buur ka ca des di kilifay lakkati mburu ya ba tax mu tëj leen ca kër kilifa wattukat ba ca kaso ba ñu tëj yuusufa kilifa wattukat ya teg leen ca loxol yuusufa mu di leen toppatoo ba ñu nekkee ab diir ca kaso ba jawriñi buuru misra ya ñu tëj muy ñaar ña féetewoo ni buur ak mburoom dañoo géntandoo ci genn guddi gént gu ci nekk ak li muy firi yusufa xëy fekk leen ñu jaaxle mu laaj jawriñi na yooye ñu tëjandoo woon ak moom ci kër sangam ne leen lu leen tax ne yogg tey ñu ne ko ay gént daalanu dikkal te amunu ku nu koy firil yusufa ne xanaa du yàlla moom piri nettali leen ma seeni gént rekk kay jawriñ bay toppatoo naanu buur daldi nettali géntam yuusufa ne ko ci gént gi garabu reseñ laa gis ci sama kanam mu def ñetti car naka la focci rekk gaaw a tóor cëgg ya meññ reseñ ju ñor maa ngi téye nii kaasu firaaw na ci sama loxo jël reseñ ji nag nal ko ci kaasu firawna ba noppi teg kaas bi ci loxol firawna yuusufa ne ko piri mi mooy lii ñetti car yi ñetti fan la fii ak ñetti fan firaw na dina la siggiloo delloo la sa liggéey ngay teg kaasu firaw na ci loxoom ni nga ko daa defe naka jekk ba nga yoree naanam waaye nga la boo delloo ca sa teraanga nanga ma geestu te dimbali ma waxal ma Firawna lu jëm ci man ba mën maa génne fii ndax mankat dañu ma sàcce ca réewu hébreu ya te fii itam defuma fi lu tax ñu war ma tëj noonu kilifa lakkati mbur ya gis ne piri mi neex na mu ne yuusufa man sama gént gi xam nga lu ma ci gis ñetti pañey mburu mu weex laa yenu ba féete kaw a nga yeb mboolem xeeti mburu yu ñuy lakkal na picc yaa nga koy for ca pañe ba ma yenu yusufa ne ko prix mi mooy ñetti pañe yi ñetti fan la fii ak ñetti fan na dina la sigiloo ba noppi wékk la ci bant picc yi ñëw di for sa suux ñu teg ca ñetti fan na di màggal bésu juddoom dajale jawriñam yépp di leen berndeel daldi cay seppee kilifa gay toppatoo ay naanam ak kilifa lakkati mburu ya sigiloo leen mu delloo nag kilifa gay toppatoo ay naanam ca liggéeyam mu teg kaas ba ca loxol na kilifa lakkati mburu ya moom da ko wékk ci bant na leen ko Yuusufa firile woon waaye kilifa ga yore naani na xalaatul sax yusufa da ko fàtte saar ñeent fukk ak benn firawna gént na ñaari ati lëmm weesu na gannaaw loolu gént dikkal na mu jeneer taxaw ca wetu dexu niil noonu mu gis juróom ñaari nag yu rafet te suur génne ca dex ga di for baraxi tàkk ga mu dellu gis juróom ñaari nag yu ñaaw te yooy topp ca ñoom génne ca dex ga làng ak ñoom ca tàkk ga nag yu ñaaw ya te yooy daldi lekk juróom ñaari nag yu rafet ya te suur firaaw na yeewu ba noppi nelawaat dellu gént gis juróom ñaari góob yu nangu te baax sax ci benn gi tax gannaaw ga juróom ñaari góob yu gooy yu ngelaw li lakk sax tegu ca ya jiitu ca la gub yu gooy ya won na juróom ñaari gub yu nangu ya te baax gannaaw loolu firaaw na yeewu xam ne gént la woon ba bët setee firaaw na jaaxle lool ba woolu jibar ya ak boroom xam-xami misra yépp nettali leen la mu gént waaye kenn mënu ko firil firaaw na ba loolu amee kilifa gay toppatoo naa ni firaaw na ne ko man de tooñ naa te dinaa la ko wax tey sang bi ba nga nu meree yow firaaw na ba tëj ma kaso ci kër njiitu wattkat ya man ak kilifa lakkati mbur ya genn guddi danoo géntandoo man ak moom gént gu ci nekk ak la muy firi fekk amoon na waxambaanewu hébreu wu fa nekkoon ak nun te doonoon jaamu njiital wattukat ya noonu nu nettali ko sunuy gént mu firil nu ko wax nu ku nekk la sa gént di tekki te na mënu ko firile woon na la amee delloo nañu ma sama liggéey ka ca des ñu wékk ko ci bant yusufa firi na génti firawna ba firawna déggee loolu dafa woolu yusufa ñu gaaw tëji ko mu watu solu door a wuy ji firawna firawna ne yuusufa dama gént te kenn mënu koo firi te ma dégg ñuy wax ci yow naan gént goo dégg rekk xam ko bu mën koo firi waaye yuusufa ne ko du ci man de waaye yàlla mooy baaxe firaw na pirim jàmm firawna ne yuusufa dama gént taxaw ci tàkkal dexu niil ma gis juróom ñaari nag yu suur te rafet génn ca dex ga di foru baraxu tàkk ga ma dellu gis yeneen juróom ñaari nag yu ràgg ñaaw te yooy génn ca dex ga topp ci ñoom diw ñaaw ba mësuma gis lu ni mel ci misra noonu yu yooy ya te ñaaw daldi lekk juróom ñaari nag yi jëkkoon a feeñ te suur waaye bi ñu leen lekkee ba noppi itam dafa mel ni lekkuñu leen ndax terewuleen a mel na woon booba laa yeewu ba noppi dellu gént gis juróom ñaari gub yu fees te baax sax ci benn gi tax gannaaw ga ma gis juróom ñaari gub yu gooy yu ngelaw li lakk sax tegu ca ya jiitu gub yu gooy ya nag wann juróom ñaari gub yu baax ya nettali naa ko samay jibar waaye kenn ci ñoom mënuma koo firil yusufa ne na sa ñaari gént yi de sang bi ñoo bokk piri sang bi yàlla dala xamal li muy def ëllëg juróom ñaari nag yu baax yi juróom ñaari at la te it juróom ñaari gub yu baax yi juróom ñaari at la muy genn gént gi te itam juróom ñaari nag yu yooy yi ci topp te ñaaw juróom ñaari at la naka noonu juróom-ñaari góob yu gooy yi ngelaw li lakk juróom-ñaari ati xiif lay firi mooy li wax rekk sang bu tedd bi li yàlla di defi ëllëg la la woon nu ngi dëgmal juróom-ñaari ati naataange yu rëy ci mboolem réew misra te juróom-ñaari ati xiifa ciy topp ba ñu fàtte naataange gu rëy ga amoon réew misra xiif ba cay topp dina yàq réew mi xiif bi dina tax lenn luy niroog naatange dootul des ci réew mi ndax dina metti lool te nag sang bi gannaaw gént nga ko ñaari yoon kon yàlla dogal na mbir mi te dina ko amal balaa yàgg yuusufa teg ca ne na kon léegi sang bi wutal nit ku muus te rafet xel jiital ko ci réewu misra te itam sang bi dangay fal ay ndaw ci réew mi ñuy sàkku juróomi natt yu ne benn ci mbooleem lu ñu góobe réewu misra diiru juróom-ñaari ati naataange yiy ñëw ñoom nañu dajale mbooleem dundi at yu baax yi te boole pepp mi ci sa ndigalu bopp yow na muy dund bu ñuy denc ci dëkk yi dund boobay doon sàqu réew mi diiru juróom-ñaari ati xiif yi dal ci réewu misra su ko defee waa mi duñu loru ci xiif bi firawna fal na yusufa mu jiite misira gépp pexe moomu nag doon lu na ak jawriñam yépp njorte ne baax na firawna daldi ne jawriñ ya ndax mësees naa gis ku mel ni kiyawaay nit ku yàlla sol xelu boppam firawna wax ak yuusufa ne ko ndegam yàlla xamal na la lii lépp kay leer na ne amul kenn ku muus te rafet xel ni yow kon dinaa la may nga jiite kër buur te waa réew mépp ci sa waaw lañuy wéy jal bi ma toog dong laa lay sute gannaaw loolu firaaw na neeti yusufa bés ni ki tey dénk naa la réewu misra gépp noonu firaaw na tekkee jaarob màndargaal ba ca loxoom takkal ko yuusufa solal ko yérey tànneef takkal ko caq wurus ba noppi waral ko watiiru ku sës rëkk ci moom na te fu mu ware ñu jiitu ko di yéene naan su jot leen noonu la ko na fale mu yilif misra gépp ci kaw loolu na ne yuusufa man maay na waaye gannaaw si tey mbooleem waa réew misra kenn du ci sañatee yëkkati loxo mbaa muy seqi jéego te àndoo ci na nag tudde Yuusufa Safnat Paneya may ko jabar Asnaat doomu Potifera ma doon saraxalkat ca dëkk ba ñuy wax on Yuusufa doxe ca tegoo kilifteefu Misra gépp ba Yuusufay tàmbalee liggéeyal na buuru Misra mu ngi toll ci fanweeri at Yuusufa daldi bàyyi ko ca na wër réew ma mépp diiru juróom ñaari ati naataanga ya suuf sa nangu ba meññeef ma tuuru mu dajale bu mbooleem dundub réewu misra diiru juróom ñaari at yooye dëkk bu nekk mu denc fa dund ba jóge ca tool ya ko wër fa la yuusufa jaare dajale pepp mu ne gàññ ni suufas géej ba tàyyeeti ko wàññ ndax mujj na wees ab lim laata ati xiif yee agsi yuusufa am na ñaari doom yu góor ak asnaat doomu potifera kilifa ak diine ga ca on yuusufa tudde taaw ba manase loolu di tekki ki ma taxa fàtte ndaxte dane li ma sonn ak li ma sore sama kër baay lépp yàlla fàttaloo na ma ko doomam ja ca topp mu tudde ko efrayim loolu di tekki giir ndaxte dane yàllaa ma giiral ca réew ma ma sonne noonu juróom-ñaari ati naataanga ya jeex ca réew misra juróom-ñaari ati xiif ya tàmbali na ko yuusufa waxe woon réew yépp nag nekk ci xiif waaye amul fu ñàkk dund ca misra ba waa misra xiifee dañoo dem jooytu ji dund ca na mu wax ak ñépp ne leen dem leen ca yusufa lu mu leen wax def leen ko ba ñu demee ba metit xiif bi dajal réew mépp yuusufa dafa ubbi denc yépp di jaay pepp mi waa misra ba nit ñi jóge fu nekk ci àddina di wut si njël ci yuusufa ndax xiif bu mettee fépp ca àddina saar ñeent fukk dem nañu misra ba yanqoo ba yégee ne pepp am na misra daa wax ak doomam yu góor ne leen lu ngeen di toog di xoolante rekk mu ne leen dégg naa ne pepp am na ca misra dem leen jëndali nu ca ndax nu mën a dund ba xiif bañ ñoo rey kay noonu fukki magi yuusufa ya dem misra jëndi pepp waaye yanqoo ba yebalul benyamin rakku yuusufa ndax dafa ragal ne musiba mën na koo dab doomi Israël ñëw nag ci biir ñiy jënd si pepp ndax xiif bi lawoon na ba kanaan fekk booba yuusufa mooy dogal ca réew ma di jaay pepp waa réew mépp magi yuusufa yay ñëw su jootal yuusufa yuusufa xupp na magam ya naka la yuusufa gis magam ya xàmmi leen waaye mu mel ni ku leen xamul di wax ak ñoom kàddu yu dëgër ne leen fu ngeen jóge ñu ne ko réewu kanaan lañu jóge di jënd ci ab dund yusufa xàmmi na ay magam waaye ñoom xàmmiwuñu ko xelum yusufa ne yar ca la mu géntoon ca ñoom daldi ne leen yéen ay yëddukat ngeen yu nemmiku ci mbooti réew mi ñu ne ko mukk sang bi danu lay siyaare di wut ci ab dund rekk te nun ñépp a bokk baay di nit ñu màndu nun kay sang bi dunu ay yëddukat mu ne leen ankay ah nemmiku ci mbooti réew mi moo leen tax a jóg ñu ne ko nun ñii di la siyaare de fukki góor ak ñaar lanu woon bokk sunu baay ba ca kanaan ka ca gën di xale nga ca sunu baay te ka ca des nekkatul yuusufa ne leen li ma leen wax moo am ay yëddukat dong ngeen waaye nii laa leen di seetloo bu seen rakk ñëwul ak bakkanu na du ngeen fi jóge na kenn ci yéen jëli seen rakk ñu tëj ñi ci des te topp seen wax ba xam ndax yéen a ngi ci dëgg su dul dëgg giñ naa ci na ne ay yëddukat dong ngeen noonu mu tëj leen ñetti fan te gannaaw ëllëg sa yuusufa ne leen bu ngeen defee lii may wax di ngeen dund ndax man ragal naa yàlla ndegam ñu maanu ngeen na leen kenn ci seen doomi baay wuutu fii ñi ci des dem yóbbul pepp seen waa kër yi nekk ci xiif waaye na ngeen ma indil seen rakk ba ma xam ne li ngeen wax dëgg la su ko defee du ngeen dee ñu daldi ne waaw te naa ci seen biir cey sunu yëgoon sunu àqu rakkanu topp nii ndax danu ko seetaanoon mu nekk ci njàqare xol dinu tinu te faalewunu ko looloo waral sunu njàqare tey jii ruben nag àdduna ne leen ndax newuma leen woon bu leen gàddu bakkanu xale bi waaye faalewu leen ma tey rekk lanu yàlla doon xaare bakkanam bi nu gàddu ba ñuy wax loolu foogoon nañu ne yuusufa déggul seen làkk ndax làppatoo ba doxoon seen diggante di tekki noonu mu du mooyu leen di jooy doomi yanqooba ya dellu nañu kanaan ba mu jooyee ba noppi walbatiku wax ak ñoom door a jël simeyon jéng ko ci seen kanam gannaaw loolu yuusufa joxe ndigal ñu sol seeni saaku pepp te ku nekk ca ñoom ñu yebal ko xaalisam ca saakoom ba noppi mayaale leen lu ñu lekk ca yoon wa ñu defal leen noonu ba mu ko defee ñu sëf seeni mbaam pepp ma daldi fay bàyyi ko fa ñu dal ca guddi kenn ci ñoom bëgg a xont mbaamam ubbi saakoom rekk ne pemm ci xaalisam mu ne doomi bàyya delloo nañu ma sama xaalis mu ngi nii ci sama saaku seen fitni ni tërit ñuy rag-rag yi ku ne xool sa moroom naan lu nu yàlla natoo nii ba ñu yeggee ca seen baay Yanqooba ca réewu Kanaan daldi koy nettali li leen dal lépp ne ko waaja yilif réew ma dafa noo reseti foog ne dañu yeddu ci réew ma nu ne ko nun ay nit ñu maandu lanu dunu ay yeddukat fukki góor ak ñaar lanu woon yu bokk sunu baay waaye kenn ka nekkatul te ka gën di xale nga fa sunu baay ba ci réewu kanaan waaja yilif réew ma nenu ni may xame ne ñu maanu ngeen nii la dangeen may bàyyeek kenn ci yéen te dem yóbbul dund seen waa kër yi nekk ci xiif su ko defee ngeen indil ma seen rakk ju ndaw kon dinaa xam ne du ngeen ay yëddukat waaye nit ñu maanu ngeen te dinaa leen delloo seen mbokk ngeen mën a dem fu leen neex ci réew mi naka la ku nekk sotti saakoom ne jàkk ca mbuusu xaalisam ba ñu gisee mbuusi xaalis ya ñoom ak seen baay dañoo tiit seen baay yanqoo ba ne leen xañ ngeen ma ay doom yusufa nekkatul simeyon nekkatul léegi ngeen bëgg a jël benyamin yóbbu loolu lépp ci sama kaw nga la man ruben wax ak baayam ne ko su ma la ko delloo boo yeboo reyal sama ñaari doom yu góor yi tegal beñamin ci sama loxo rekk man dinaa la ko delloosil waaye yanqoo ba ne sama doom daal du ànd ak yéen ndax magam faatu na te moom rekk a des su ko musiba dabee ci yoon wi ngeen jëm dingeen ma yóbbe naqar wu may jàpp ba kere may ànd ak sama bijaaw tàbbi njan yu saar ñeent yóbbu nañu beñamin gannaaw loolu xiif bi metti ca réew ma ba ñu lekkee pepp mi ñu jële woon misra ba mu jeex seen baay ne leen dellu leen wute lu ñu dund waaye yuda ne ko waaje danoo artu woon de wax nanu nenu dootu leen jàkkaarloog man te àndu leen ak seen rakk boo bàyyee sunu rakk mu ànd ak nun nag dina dem jëndali la dund waaye bokk bàyyiwul kat duñu dem ndax waaje waxoon nanu nenu du ngeen jàkkaarloog man te seen rakk àndul ak yéen israyil ne leen ana lu waral ngeen di ma lor naan waaja am ngeen jeneen rakk ñu ne ko waaja kat dañu doon laaja ka laajaat ci nun ak sunuy bokk ba naanu ndax sunu baay mu ngi dund ba tey ak ndax am nanu rakk nun itam nu wax ko li mu nu laaj gént woon moos ne dinanu sant nu indil ko sunu rakk la ca tegu yuda ne israyil baay tegal ngóor si ci sama loxo nu daldi dem ndax nu dund bañ a dee nokk yow ak sunuy doom dige naa sama bakkan boo yeboo laaj ma ko bu ma la ko delloosilul ba teg ko fi sa kanam maa lay tooñ sama giiru dund bu nu yeexaloon ba léegi mënoon nañoo dem ba dellu si ñaari yoon sax noonu seen bàyyi Israël ne leen ndegam mënu la ñàkk dangeen di def nii sàkk leen ci ngëneeli réew mi yàpp ci seeni saaku yóbbul waaja lu mel ni tuuti diwu yaram ak lem ak cuuraayu xas ak cuuraayu ndàbb ak ay xeeti saal te ngeen yóbbaale ci xaalis lu tollook ñaar cey la ngeen jënde woon ngir feyale loola ndax jombul njuumte la woon su ko defee ngeen ànd ak seen rakk fabu dellu ca waaja yàlla na yàlla aji man ji def waaja yërëm leen ba bàyyi seen doomu baay ba moom ak Beñamin itam man nag su ma naree ñàkk ay doom a ah, na ñàkk rekk magi yusufa ya nañu misra gaañu jël nañu sarica booba yóbbaale nañu it ñaar cay xaalis ba daldi ànd ak Benyamin ñu dem Misra teewi ca kanam Yuusufa ba Yuusufa gisee Benyamin ànd ak ñoom dafa wax fara biir këram ne ko yóbbul gaañi ca kër ga te nga rey gàtt defar ko ndax maak ñoom ñooy bokk añ tey waaja def la ko Yuusufa wax yóbbu gaañ a kër Yuusufa waaye ñu am tiitaange ndax li ñu leen yóbbu kër yuusufa ña ngay xalaat naan boo demee xaalis bi ñu yeboon ci sunuy saaku yoon wu jëkk wa moom lañu bëgg a taafantoo dugal nu fii ba song nu jàpp nu jaam nangu sunuy mbaam boole ci ba ñu demee ba ca buntu kër yuusufa wax nañu ak fara biir këram ñu ne ko sang bi paal nu nun de ñëwoon nanu fi lu jiitu ngir jënd ci dund waaye ba nu dalee ca yoon wa danoo ubbi sunuy saaku ku nekk ci nun fekk xaalisam ca kaw mu toll na mu toll woon te indiwaat nanu ko te it indaale nanu xaalis bu nu jënd dund waaye xamunu ku delloo xaalis ba ci sunuy saaku mu ne leen jàmm rekk la bu leen tiit seen yàlla ji seen yàllay baay moo leen defal alal ci seeni saaku seen xaalis jot naa ci noonu mu génne simeyon indil leen ko waaja dugal leen kër yuusufa may leen ndox ñu jàngu ba noppi xont seeni mbaam ba mu ko defee ñu yebbi seeni sërica bala yuusufa agsi ca digg bëccëg ndaxte dégg nañu ne foofu la ñuy añee ba yuusufa wàcc see ñu jébbal ko foofa ca biir kër ga sërica ba ñu ko indaaleel daldi koy sujootal mu nuyoo ak ñoom ba noppi laaj leen ne seen baay bu màggat ba ngeen doon wax mbaa mu ngi dund mbaa mu ngi ci jàmm ñu ne ko sunu baay mu ngi dund sang bi te mu ngi ci jàmm ña nga koy sukkal tey sujjootati naka la yusufa ne gees gis beñamin rakku doomu ndeyam ja mu laaj leen ne ndax kii mooy seen rakk ji ngeen ma doon wax la ca tegu mu ne rakkam ja sama ngóor si yal na la yàlla defal yiw ci kaw loolu yuusufa gaaw génn ndax yaram wu daw te mënatul a tëye ay rangooñam ndax rakkam ja mu dugg néegu biiram di jooy ba mu noppee sëlmu génn door a ànd ak sagoom daldi joxe ndigal ne taaj leen añ bi loolu weesu ñu may yuusufa moom rekk ber doomi baayam waa misra ña fa doon lekk it ñu beral leen seen ndab ngir waa misra daawuñu bokk ak hébreu yi lekk ndax mbañ la fa woon ña nga toog na mu leen ko sante taaw ba fegge wet ni ko ko cëru taaw maye ñu sësaloo nañu toppante ci at ba ca caat ma gaañaa nga yéemu di xoolante noonu mu sàkkal leen ca ndabam waaye Benyamin ëppale ku ci nekk juróomi yoon ñu bokk nag naana naan ba seen xol sedd saar ñeent fukk ak ñeent yusufa nattu na ay magam ba loolu wéyee mu sant fara biir këram ne ko solal seeni saaku pepp lu ñu mën a àttan te nga delloo ku nekk xaalisam tegal ko ko ca buntu saakoom waaye sama kaasu xaalis boobee yebal ko ki gënti xale ci saakoom boole ko ak xaalisu peppam mu def la yusufa wax ca ëllëg sa ba jant bay fenk yiwi nañu gaaña ñu sëf seeni mbaam dem naka lañu génn dëkk ba te soreeguñu sax yusufa sant fara biir këram ne ko gaawal dab gaaña te boo leen dabee wax leen ne leen lu tax ñu ji leen njekk ngeen feye ngoreedi ndax li ngeen jël lu sama kaasu sang bi muy naane rawatina di ko gisaane lu ñaaw ngeen def nii noonu mu dab leen wax leen loolu ñu ne ko kilifa gi looy wax ni nun de sang bi jomb nanu loolu xaalis bi nu fekkoon ci sunu bunti saaku sax danoo àndaat ak moom jóge ba kanaan delloosil la ko kon nan lanu mën a sàcce sa kër sang xaalis mbaa wurus ngal la kilifa gi yaay sunu sang koo ko fekkee ci nun rekk booye boo reyal ñi des ci ñun doxe fa di say jaam mu ne leen li ngeen wax yoon la sax waaye na ki ma ko fekkee dong di sama jaam su ko defee ñi ci des wàcc ñu gaaw nag wàcce seeni saako ci suuf ku nekk ubbi saakoom ma ngay seet tàmbalee ca taaw ba ba ca caat ma door a fekk kaas ba ca saaku beñamin ba loolu amee dañoo torox ba xotti seeni yére ku nekk sëfaat mbaamam ñu dellu ca dëkk ba yuda na beñamin ca yusufa yuda ak i doomi baayam nag dellu si kër yusufa fekk demagul ñu daldi ne nërëm dëpp seen jëfi suuf yusufa ne leen ngeen def nag xanaa xamuleen ne nit ku mel ni man day gisaane yuda ne sang bi lu nuy waxati lu nu mën a lay ba setal sunu bopp yàlla nu feeñal sang bi nanu bokk nun ñépp di say jaam yem ci képp ak ki ñu fekk kaas bi ci loxoom mu ne leen jomb naa loolu ki ñu fekk kaas bi ci loxoom mooy doon sama jaam ñi ci des dellu ca seen baay ci jàmm yuda jege si ne ko ngalla sang bi ma ñeme laa diis leen rekk te sa xol bañ a tàng ci man donte yaag firaaw naa tolloo sang bi danga noo laajoon nenu ndax am ngeen baay walla rak ba mu ko defee nu ne la am na nu baay bu màggat sunu rakk ji mu jur te fekk ko di màggat nag moo ci gën di ndaw magam dafa dee mu des moom dong ci ndeyam baayam sopp ko lool nga waxoon nu nenu indil leen ma ko ngir ma gisal ko sama bopp noonu sang bi nu wax la ne xale bu góor bi mënula tàggook baayam bu tàggoo ak moom kon baayam dina dee nga wax nu nenu bu seen rakk àndul ak yéen du ngeen jàkkaarlook man booba lanu dem ca sunu baay balay siyaare daldi koy jottali say kàddu ba nu demee ba mu yàgg sunu baay ne dellu leen jëndali tuuti dund waaye nu ne dunu mën a dem te sunu rakk àndul ak nun ndaxte bu nu àndul ak moom dunu gis kilifa ga sunu baay balay siyaare nanu xam ngeen ne dama amul ak sama soxna lu dul ñaari doom kenn ki dem wàcc ma ma ne moom kay aw rabu àll ko daggate gisaatuma ko ba tey jii te bu ngeen ma fi jëlalee kii itam ba mu musiba dab ko dingeen ma yóbbe naqar wu may jàpp ba kere may ànd ak sama bijaaw tàbbi njan yiw léegi nag bu ma ñibbee ca sama baay balay siyaare te àndunoo xale bi muy noyee bu gisul xale bu góor bi ànd ak nun ñibb si ah kon de dina dee te dina nu yóbbe sunu baay naqar wu koy topp ba kere muy ànd ak bijaawam tàbbi njaniw gannaaw loolu it xasoon naa digg sama bakkan ndax dama waxoon ne bu ma la ko delloo silul maa koy gàlloo ba kere may dee kon nga sang bi bàyyi ma man ma des fii di sa jaam wuutu xale bi te moom mu dellu ànd ak i magam ñibbi ndax xaw ma nan laay delloo ca sama baay te ànduma ak xale bi yàlla bu ma fekkee njekkar wi ciy dal sama baay saar ñeent fukk yuusufa xàmmiku na ay magam ba loolu amee yuusufa mënatula téye boppam te surgaam yépp a nga teew mu daldi àddune xiddi leen ma yéen ñépp ñépp dem ba benn jaambur nekku fa ba yuusufa di xàmmiku ay bokkam mu ne yikket jooy jooy yu metti waa misra di ca dégg ba ca kër na sax noonu yuusufa ne magam ya man mii maay yuusufa mbaa sama baay ngi dund waaye magam ya mënuñu ko tontu ndax booba njàqare jàpp na leen yuusufa dellu ne ay magam jegeñ si leen ñu jegeñ si mu ne leen man maay yuusufa seen rakk jigéen jaayoon ñu indi ma misra waaye bu leen jaaxle tey mbaa ngeen di sikk seen bopp ndax li ngeen ma jaay ñu indi ma fi rawale ay bakkan moo tax yàlla yebal ma fi ma jiitu si leen ñaari at a ngi xiif baa ngi ci réew mi te fii ak juróomi at ci kanam kenn du bey kenn du góob yàlla dama yebal ma jiitu si leen ba rawale seen bakkan dikke leen xetal gu mag ba seen askan bañ a fey kon nag du yéen ma yebal fii waaye yàlla te moo ma jagleel ma doon cëslaayal na mel ni bàyyi ci moom jiite këram gépp boole ci yilif mboolem réew misra gaawleen dellu ci sama baay te ne ko sa doom yusufa nee na yàlla fal na ma kilifak misra gépp ñëwal fi man nu mu gën a gaawe su ko defee nga dëkk si diiwaanu gosen nekk ci sama wet yaak say doom ak say sët ak say gàtt ak say gétt ak loo moom ndaxte des na juróomi ati xiif waaye dinaa la fi yore ba doo ñàkk dara yàq sa waa kër ak mboolem lu bokk ci yow yéen a gisal seen bopp yéen ak sama rakk beñamin ne man Yuusufa mii may wax ak yéen nettali leen sama baay ndam li ma am ci Misra ak li ngeen gis lépp te ngeen indi sama baay nu mu gën a gaawe noonu mu laxasu beñamin rakkam daldi jooy benyamin it laxasu ko jooy magam ña itam mu fóon leen tey jooy booba la magi yuusufa ya door a wax ak moom na woo na ba misra ba xibaar ba àggee kër na ñu naan magi yuusufa ñëw nañu doonan na lu neex firawna moom ak i dagam firawna ne yusufa waxal say mag ne leen ni ngeen di def mooy nii sëf leen seeni mbaam te dem réewu kanaan jëli seen baay ak seeni njaboot ngeen ñëw fi sama wet dinaa leen jox suuf si gën ci réewu misra ngeen di lekk li fi gën a duuf firawna dellu ne yusufa am nga ndigal itam ci wax leen ne leen ni ngeen koy defee nii la dangeen di jële ay watiir ci réew mi dem yeb ci seeni doom ak seeni soxna te ànd ak seen baay ngeen ñëw te bu leen rëccu alal ji ngeen di bàyyi seen gannaaw ndax li gën ci réewu misra yéen a koy moom ba loolu amee doomi israel def noona yusufa jox leen ay watiir ci ndigalu na ak lu ñu lekk ca yoon wa mayaale leen ku ne mbubb mu rafet waaye Benyamin moom ñetti téeméeri donji xaalis la ko may tegal ko ci juróomi mbubb yu rafet baayam nag mu yóbbante ko fukki mbaam yu góor yu sëf lay tànneef ca misra ak fukki mbaam yu jigéen yu sëf pepp ak mburu tegal ko ca lu mu dunde ca yoon wa muy ñëw gannaaw loolu mu yiwi ay magam ne leen ngalla bu leen xuloo ci yoon wi noonu ñu dem booba lañu bàyyi ko misra dellu réewu kanaan ca seen baay yanqooba ñu wax ko ne ko ndekete yuusufaa ngi dund te sax mooy kilifa réewu misra gépp ba ba déggee loolu yaramam dafa dee goy ca saasa ndaxte gëmu leen waaye ba ñu nekkalee seen baay ba li yuusufa wax lépp te mu gis watiir yi yuusufa yónnee ngir jëlsi ko ca la xelam dellusi Israyil daldi ne moom kay na dund rek sama doom faa ngi dund man kay dinaa dem ba gis ko bala ma fay jóge